di ko kañ moom sunu boroom di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaan yu kawe yi nga xam ni sunu boroom tabaraka wa rek mooy ki ko jagoo noo ngi julli di sëlmal ci ab yonenteem sallallahu alayhi wa sallam di ñaan sunu borom mu dëkkee doot ci waamem xewal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi ala saxaabati ajmain ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سنت نان سونو بوروم بيم توفيق با ني ديلو سيوات سي سونو تفسير القران العظيم غيناو بوم ني باخي با ني ويرو كور و تيد و ماغ وي lépp luñ ci def ci ay xeeti jaamu yàlla suñu borom mu nangul nu ko te fulal nu ko waaye luñ ci def ci ay ricc ricc suñu borom jéggal nu ko te baal nu ko innahu samiun qarib mujibu daawaat ci jeexintalu koor gi ñoo ngi jeexal suuratu raad ci bitib koor gi ñu war a dëgmal saar wi nga xam ne mooy suuratu yusufa alayhi salaam saar wi nag di suuratu yusuf saar la wow am na ay jagoo yu mu wéetoo ci biir yeneen saar yi nga xam ni mi ngi ci téere bi doon te lépp a foor te màgg ndax waxi sunu boroom saara ngi woo xam ni alquran ji lépp di ko teewlu ay njariñ la waaye saar wii day ku ko teewlu te dabbur ko jox ko sa yitte ju mat ak sa waxtu di nga ci jariñu lu toll ni loo xam ni yàgg nga déglu yeneeni saar wala yeneeni bind ci tafsir te jariñoo woo ca lu toll noona li ko waral mooy saar wi dafa am ay jago yu kéemtaane yoo xam ni ak i mbir yu ruqe yoo xam ni ak seetantal gu mat sëkk la laaj goo xam ni boo ca noppee bu la suñ borom naree dimbali defaruk addunaa cay topp ak defaruk àllaaxira saara ngi woo xam ni li mu nar a nettali jàpp naa ne ñu bari ci ñun dégg nañ ko mooy nettali bi yusufa alayhi tàmbalee ko ca géntam ga ba ba muy ñaan ca jeexintalu saar wa mu nekk borom bi dimbali ko ndax ñàkkatut dara ci àdduna allaaxiraa ko dese yaakaar naa ne duñ fi nettali loo xam ni nit dana dégg guma ko yu ci bari parce que histoire la boo xam ni yàgg nañ koo dégg waaye sama kàddu mooy ndax yàgg googu ñu ko yàgg dégg est-ce que nañ ci lu toll ni liñ ci war a jariñu ndax jëmmi dégg histoire bi rek dem taxut woon jóg taxut woon it ki nettali histoire bi di ko wax waaye dafa am ay jàngale yu am solo yu nekk ci biir yoo xam ni même ñun ñiy jàng alxuraan sax dañ koy faral di romb te duñ ci bàyyi xel loolu moo waral bindab tey bii danañ ko def muqaddimatun fi tafsiri suurati yusuf bindab bi day nekk ab introduction wala ak ubbee ak laytaay goo xam ne dama koy def ci suurtu Yuusuf laytaay gii nag li ma ci jublu mooy bu ñu sóoboo ci saar wi kenn ku ci nekk day fekk xippi nga say bët bu yàgg yëf yëfaan yu am solo yi nga daan romb te daawoo ci bàyyi xel muqaddima tey bi laytaayu tey gi day nekk sabab léegi moom dootoo ko rombati mbaa nga dégg ko ludul yow ci sa jëmmi bopp rek danga ci am sa njàngatu bopp gu wuuteeg la nga ca daan dégg kon saar wi di suurtu Yuusuf mbokk jurit yi moom lañ am yéene soobu ci ndimbalam sunu boroom tabaraka wa la ca jëkk ca laytaay gi nga xam ne dañ koy defal suurtu Yuusuf mooy xam ngeen ni suuratu yuusuf mooy aw saar wu wéet ci alxuraan woo xam ni ab histoire lay nettali boo xam ne dogat dogateewu ko waaye histoire bu gudda gudda gudd ba mel ni histoire yuusuf mu traité ko traité bu rafet te nosewu ba mel ni ni mu ko defalee suuratu yuusuf loolu benn yoon la ci téere bi muy suuratu yuusuf wa illa yonent yàlla yi suñ borom nettali yëpp seen dund boo seetloo ay dogat dogat lan ko def saar wi am ca saar wala am ca waaye suurtu Yuusuf dañ ko tënk ci wenn saar ñenn ci borom xam-xam yi dañuy wax ni yàlla mooy ki gën a xam xereñe ga waaye bokk na ci sabab yi mooy nettalib Yuusuf mbirum famille la te mbirum famille laajut jagat jagate laajut dogat dogate moo tax suñu borom boole ko ci wennaw saar loolu xekk ma ju rëy la joo xam ni bariwaa na ñuy jàng saar wi te duñ ko seetlu mooy mbirum famille te xam ngeen mbirum famille booloo moo ci gën tasaaroo moo tax borom bi tabaraka wa taala boole ko ci wennu saar rek nga ñëw jàng ko mu jeex comme mbirum famille kenn du ko jagat jagate jëme fenn kenn du ko dogat dogatee tamit jëme fenn bokk na ci yiñ mën a seetlu ci saar wi di suurtu Yuusuf mooy saar wi ci jëmmi boppam dafa wàcc ci ay situation yu mu fekkoon saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoo xam ni jamono jooja dañoo aaje woo saar wu mel ni suurtu Yuusuf ndax yonent salaam ci bi mu tolloo ci digg mettit wa ko Qurayshin doon teg ak ay saxaabaam saxaaba yi dem nañ ba am ci njàqare ba am ñu fekk yonent bi saa sallam fa mu toog di sàkku ci moom mu wutal leen am ndimbal mu bàyyi ko fa suñ borom jaxasoo am nit ki dem ba mu yàgg sax muy am tuuti sikk sàkka ci lim nekk la ko waraloon muy metti gi ba ñu dikkee kalaama yonent bi alayhi salaatu wasalaam sunu borom daal di wàcce saar wi di suuratu Yuusuf saar wi nag bi mu ko wàccee dafa dëfal saxaaba yi genn xeetu dëfal goo xam ni kéemtaan nga jéggi na dayoo li ko waral mooy saar wi ci boppam li muy nettali dafa méngoo ak li yonent bi doon dund sallallahu alayhi wa sallam loolu laay wax mbokk yi ma ni leen li ñuy tudde tasliya muy dëfal doomu aadama bu nekkee ci ay xat-xat ak ay jafeñ-jafeñ nga waxtaan ak moom nettali ko ay mbir yoo xamante ni nit dund na ko mu mel ni moom yi muy dund wala mu gën koo metti loola bokk na ci li ko mën a defal bokk na ci li gën a mën a wàcc ab xolam bokk na ci nurowaale gi ci am mooy xam ngeen ni ci saar wi da gis ni yuusufa gis salaatu wassalaam bokki deretam yi ko gën a jege mu bokk ak ñoom baay benn baay di genn ak geño nga xam ni bu dimbali doon am ñoo ñoo ko waroon a dimbali ñooñu ñoo ko teg fitna jim dal ba tàbbal ko ca teen ba kon bu ko saxaaba yi yëree gis ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam mbokki deretam yi ñoo ko fitnaal ba bëgg ko génn dëkk bi ba embargo ko ñetti at ak nuróo day daal bëgg a ñëw foofu yusuf alayhi salaam boo seetloo ci biir saar wi dinga gis ni ay mbiram mi ngi tàmbalee ci gént ak gént goo xam da koo gént muy gént gu kéemaane mu ñëw nettali ko baayam baay ja wax ko ca lam ko ca wax te dina ñëw ci saar bi jamono jooja fekk na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay saxaabaam xam nañ ni ay mbiram moom yonent bi mi ngi tàmbalee ci gént comme ni mu ñëwee ci xadis bi jëkk ci saxiixul Buxaari yonent bi daawul gént gént menn mbir lu dul bu yeewoo day mel ni xaruk fajar kon mbirum yonent bi sax dafa déparé ci gént suñu borom wan ko ci yam ko cay wan yuusufa tamit kadaalika ay mbiram ma nga déparé ci gént saxaaba yi gis ni ci saar wi danga ca fekk ni yuusufa alayhi salaatu salaam ku sunu borom mayoon ay may la ci wàllu firi gént boo ñëwee saxaaba yi xamoon nañ ni yoon sa salaam kéemaan la woon ci firi gént bal xam ngeen ni ñëw na ci hadit àggoon na ci danañ julli fajar ba noppi sax ni saxaaba yi kan moo gént biig ak gént ma nettali ko kon ak nuroowaale gu mat sëkk mi ngi foofu noonu yuusufa ay bokkam ñoo ko tàbbal ca teen ba mu génn ñu jaay ko ca marché ba mu génnaat ñu dugal ko ca pale ba mu génnaat ñu ko ca kasa ba génnee nekk buur yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono jooju embargo nañ ko ñetti at fi shaabi abi talib ca makka mu génn ca loola ñu def ay pexe ba génne ko dëkk ba mu génn ca loola mu dem madina mu génn ca loola dellu si waat mulbatiku daal di nekk ab yonent ba noppi daal di not ña nga xamante ni ñoom ñoo ko doon pamti pamti ca jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu jekkoo aw nitam day def leen a jéggal ci saar wi danga nga ciy gis yusuf alayhi salaatu wasalaam ba mu jekkoo ay bokkamit nag fàttaliku lu ñaaw daf leen a jéggal ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam ni buñ bañul woon guddal mën nañ cee tudd lu bari di ay yëf yu nuroo yoo xam ni dafa gaaw lool ci li ñu tudde tasliya muy defal nit xam ngeen nit ki am jafeñ-jafeñ ci wàllu feebar nga nettali ko koo xam ni feebaram ba gën a metti besam fuuf te amaana kooku ko gën fuuf te amaana besam moo gën a yàgg bésu kii fuuf loola waaja bu dee borom xel la dana ci jariñu saar wi ci laytaay gi ba léegi di ngeen gis ni sunu borom da koo tuddee ahsanal qasas mooy nettali bi gën ci rafet ci nettali yi borom xam-xam yi nga xam ni dañuy gëstu ci sharia ak xóotal ga tafsir alquran ak xóotal ga mu àndal dañuy wax ni amul benn werante ku jàng suurtu yusuf ba mu yegg di nga yëg li tax suñu borom mu ni saar wi mooy ahsanul qasas ndax nettali bi ci boppam dafa am impact bu muy def ci xol doo déglu suurtu yusuf ba jug lu dul dana am lu mu def ci yow moo tax kenn ci magi salaf da doon wax ni ku ami problème wala njàqare buñ la jàngalee suurtu Yuusuf ba noppi njàqare ya war naa dañ ba jeex tàkk te wax na dëgg suurtu Yuusuf da ci gis ay yëf yu yéeme yu jaaxal nit bokk na ci yooya mooy xam ngeen ni Yuusuf alayhi salaatu wassalaam am mbubb fës na lool ci saaram wi muy mbubbam ma gis ngeen ba muy dàqante jigéen ci in kaana qamisuhu qudda min gis ngeen ko ca ca ba muy gindeeku ak mbokkam ya daa wax idhabu bi qamisi hada borom xam-xam yi dañuy wax ni am mbubba ngi moo xam ni moom lañ doon jëfandikoo pour jéem a naxe même mbubbuma moom lañ doon jëfandikoo pour setal yusufa même moom lañ jëfandikoo ngir sànni ko ca xar kanamu baay ja bët yi daldi dellu na meloon loolu nag bokk na ca la nga cay déggee mooy ndekete léeg-léeg na mbir danañ ko jëfandikoo ci nangam jëfandikoowaat ko ci nangam te mbir yi day wuute ndax borom bi tabaraka wa taala mooy ki nga xamante nii mooy dogal te loolu dana gën a leer ci biir saar wi bokk na ci njëriñ yi nga xam ni wala laytaay gu yu am solo yi nga xam ni des na ko bàyyi xel ci saar wi di suratu Yuusuf mooy Yuusuf dey baayam da ko bëggoon lool mbëggeel gu jéggi dayoo waaye ca mbëggeel googu suñu borom nattu ko ca bañ foqarñi ko ci ay loxoom tàbbal ko ca teen ba tàbbal ga ca teen ba nag lu mitti la moo tax boroom xam-xam ñu wax ne mbëggeel léeg-léeg dana jur lu la neexul ndax dafa bëggoon doom ji lool mbëggeel ga jur ñu fuqar ji ko ci ay loxoom tàbbal ko ca teen ba tàbbal ca teen ba metti lool ñu génne ko ca teen ba dugal ko ca pale ba pale ba neex lool ñu génne ko ca pale ba dugalaat ko ca kaso ba kaso ba metti lool ñu génne ko ca kaso ba mu faf nekk buur maanaam yëf yi kon dafa mel ni kon yaa ngi bëgg a comprendre inna ma al usri yusran maanaam affaire daal dafa mel day toppalante baayam da ko bëggoon lool ñu foqar ñu ko ca bëgg ga dugal ko ca teen ba teen ba metti lool ñu génne ko ca teen ba dugal ko ca pale ba pale ba neex lool ñu génne ko fa dugal ko ca kasa ba kasa ba metti lool ñu génne ko fa mu daal di nekk buur kon ndekete indi na ma ala usri yusran adduna bi daal jàppal ni gis nga fi ne lu mu neex neex seentul ginnaawaati suba rek yi yi dana tàmbalee commencé naqari beneen bi ci des mooy boo seetloo ci njariñ yi nga xam ne dees na ko jàngee ci saar wii di suurtu Yuusuf mooy baatab découragé baatab découragé dafa ñëw ci ñetti barab ci saar bi te it buñ ca noppee ci xam nga la muy wund mooy gis nga nit amul situation yu mu war a toll ba découragé gis ngeen wala tay asu min rawxillahi innahu la yay asu min rawxillahi illa alqawmu alkafirun gis ngeen xatta ida stayasa rusul wa dannu annahum qad kudibu jaahum nasruna gis ngeen falamma stayasu minhu xalasu nadiya benn bu ci nekk day wax ci mbirum découragé foofu da nga ci gis ni kon doomu aadama ci boppam benn mbir waru caa découragé ndax borom bi tabaraka wa taala lépp loo découragé jàpp ne mënatu sa baax rek mën na koo soppi ba mu baax loo su découragé ni mënta nekk rek sunu borom mën na koo soppi ba mu nekk bokk na ci yi nga xam des na ko jariñoo ci saar wi mooy gis ngeen ni borom bi dafa def ay bokkam bëgg koo xañ lu suñu borom dogal ci moom tax ñu tàbbal ko ca teen ba waaye yàlla yabal am njëg moo xamante ni ñoom dañoo am aajo ca teen ba faf ko génne maanaam moom ka ko tàbbal ca teen ba soxora taxoon mu tàbbal ko fa waaye ki ko génne ca teen ba soxlaa tax mu génne ko fa gis nga diggante soxor ak soxla ca la suñu borom dogal la muy dogal ba yuusufa génn ca teen ba gis ngeen ni borom bi tabaraka wa taala dafa def buur ci boppam amut woon doom ñàkk gam ñàkk doom sabab la ci mu soxla ku mu adopté faf dajeeg yuusuf ku ñàkk sa baay ñàkk say bokk nekk ci dëkk bi di doxandéem li wolof yi naan ku amut fu mu ku amul ku ko wéttali ñoom ñaar bu ñu dajee tëjal buntu du leen kee moom fu mu dëkk da koo so day sëkk soxla kii moom doom ju mu adopté ci këram doy na ko soxla ñoom ñaar ñu daje moo tax kenn ko ci nekk mbégte la doon ca moom yuusufa dañ ko tuumaal ni ko rab ci biir kaso yàlla gént loo buur bi géntu ku ko jaaxal gént goo xam ni dafay nekk sabab ci aajo wa ka ca kaso ba te mën a firi gént tey mu génn am na ku ne ca kaso ba ma référé gént kooku tey mu génn ndax soxla nañ ko kon léeg-léeg mbir yi li nga yaakaar ni moo koy doxal du loolaa koy doxal moo tax benn borom xam-xam di wax ni ida tawalla allahu anka hayya laka kulla asbaabi saada ida tawalla allahu anka borom bi tabaraka wa taala saa bu méngoo say mbir bëgg laa defar moom daal day jël ay xeeti teraangaak lu tar sa yëf ya baax daal di koy wommat teg ko ci sa kanam moo tax gis ngeen ca suurtu xaafir wax ju am solo nga fa lu mat a bàyyi xel mooy wa ufawidu amri ila allah man daal say mbir yépp wéer naa ko ci saa borom gis nga sëy mbir yépp boo ko jëlee wéer ko ci sa boroom te muy dëgg wallahi di nga gis kéemaan yu bàyyi ci suñu borom yàlla tabaraka wa taala danañ romb ci saar wi baayab yusuf bi mu naree gàntal doomam ya doon sàkku ci moom pour ñu yóbbu yuusuf ca àll ba dañuy wax wa axaafu an yakulahu dibu damay tiit till gi lekk ko frère ya bañ demee ba ca àll ba xool di wuti pexe amul nun def dañ dañ daj seen xel dafa daj ni comme suñ bàyyi mi ngi doon tiit naan till gi dana ko lekk kon ñun nañ ñu ko faf till gaa ko lekk moo tax benn borom xam-xam mu ni sabab yii tax nit am occasion ci say wax booy discours dee ko wattu léegi da ngay discours ba noppi fekk ki la nam ma daaneel ci sa discours lay jaar daaneel la ndax doon naa tiit tilli gi lekk ko fab ñoom bañ njëkkee ñu ni fa akalahu di bu tilli gaa ko lekk xam nga loolu ñoom mënoon nañoo see sax beneen pexe waaye dañoo xool gis ni amut lenn ak suñu bàyyi ni mu ñoreek ni mu ñawee amut lu muy tiit lu dul tilli ko ko lekk tiitu teen ba tiitu mënoon nañoo ñun ni ko daataa ca teen ba waaye su boobaa ñu deen wëri ko di mënoon nañu ñu niñ daa réer kon su boobaa waaye till ga da koo lekk ànd ak nag pexe yan def yi wane ni till gaa ko lekk waaye loolu moom taxut mu jàll bokk na ci yu am solo yi nga xam ne des na ko seetlu ci saar bi mooy bokki Yuusuf bi ñuy discours ba ñu soxlaa seen intérêt ba mu ñëwee dañuy fa arsil maana axaana suñ frère bi suñ rakk ji dañoo bëgg nga bàyyi kook ñun ñu dem waaye ban demee ba seen intérêt jeex nga xam ni soxlaatuñ ko tuddeetuñ nangu nanguwuñu wax axaana ah, seen frère sa doom ji lañ koy wax sa doom ji ñu ko innab naka saraxte lépp ñu ngi ci wenn saar wi di biñ soxlaa gone gi dañ ko fa arsil maana axaana ah dañoo bëgg suñu frère bi nga bàyyi kook ñun ñu dem naktal wa inna lahu la xaafiduun waaye bañ demee ba seen soxla jeex lu ñu wax innat naka sarax sa doom ja ñu waxoon axaanaa de moom la ñu wax sa doom ja sàcc na kenn ci borom xam-xam yi mu ni moo lay wan ni gis nga nitub intere ak a a gaaw a soppeeku ay discours nitub intere mën naa wax benn wax tey ba nga ni gongo ëllëg mu wëlbati wax ja ba nga yaakaar di woon kii lu ko waral moom intérêt rek lay xool ci intérêt am ci lay sukkandiku pour def discours bi mu war a def bu ñu xoolee saar wi wax ju ñaaw te yées yëkkati nañ ko jëme ko ci yuusuf wax ja mooy kii kat yaayam ab sàcc la mooy buur moo leen war a jox mooy kilifa gi mbilim lacc mën na leen tëj ci kaso bi waaye bañ waxee wax ju ñaaw jooja borom bi dañuy fa asarraha yusuf fi nafsi yusuf ni cel wanaasu ko booye li ko neex ak li ko naqari moo tax borom xam-xam yi dañuy wax ni bokk na ci matu kilifa léeg dangay tan ngay tànqamlu léeg nga muuma muumalu léeg-léeg nga feneti léeg-léeg nga dégg mel ni ku déggul léeg-léeg nga dégg mel ni ku déggul fa kun ka annaka lam tasma walam yaqul gis nga léeg am na yenn discours yoo xam ne bu yegsee la lay dimbali pour nga réussir ko mooy nga dégg mel ni déggoo nga def li wolof yi tuddee xam ba ca loolu nag ko yàkkamti mënu ko ndax gis ngeen yuusufa ba mu déggee kàddu yooyu bu defoon réaction ci saasa ba mu ko ba mu tolloo ci def ko bañ nan ko yaay yuusuf mu ni maa yuusuf fekk waxoon nañ ko wax ju ñaaw ja réaction bi foofu la gën a dalee foofu la gën a amee impact ci ñami waxalee moo tax léeg-léeg di nga wax benn baat wax ja du jàll te am na noo doon xaaree ba wax ko jot nga wax ko rek boo ko waxee wax ja dana def jeexintam wa kadalika boo seetloo ba léegi ci njariñ yi nga xamante ni Yuusuf dees na ko xool ci histoire bii nga xam ne bari waa na koy dégg te duñ ci bàyyi xel mooy gis ngeen Yuusufa day borom xam-xam yi dañuy wax ni borom jikko yu wurusu ngalam soppi ko jamono soppi ko fa mu nekk du ko saa soppee jikko ju rafet rafet na ba noppi gis nga waa ji boo ko jëloon yóbbu ko bitim réew na meloon lay mel boo ko yóbboo bàyyi wiir réew ni meloon lay mel boo ko jëloon tëj ko kaso na meloon lay mel keroog ba yuusufa nekkee ci biir kaso ba gis ñaari nit toppatoo ñii defal ñee firil ñee seen gént ga ñaari ña bañ ko xoolee ba sippali ko dañ ne ko inna naraaka inna naraaka minal muhsinin yow mii daal xam naa niñ la gisee ku baax nga yow ku mën a rafetal nga keroog bi ay bokkam ñëwee fekk mu nekk buur xoolal diggante farq bi nekk ci prisonnier ak président prisonnier mooy kañ tëj président mooy ki jiite réew mi xam ngeen ne diggante boobu moos ay kilomètres yu bare bare bari ci soppeeku dox na xam waaye ñoom it même kàddu gi lañ wax te yëgoowuñu ak ñële mooy inna naraaka min al muhsinin ñun dal nii ñu la gisee yow mii buuru baax bokk na ci sew-sew yi nga xam ne bari waa na luñ koy jàng te duñ ko seetlu yusufa alayhi salaatu wasalaam bi frère am bi ñëwee muy benyamin ba mu koy gendeeku dañu ko inni ana axu man maay sa frère Yuusuf te jamono ji muy wax loolu borom xam-xam ñu ni moom mooy njiita réew mi moo ne mënoon na ni ko man maay njiitam réew mënoon na ni ko man maay Yuusuf sam frère bi waaye maay njiitu réew mi teg ci waaye borom xam-xam yi dañuy wax ni doomu aadama bi nga xamante ni yàlla may na ko mu nekk nit ku nit te am jikko yu rafet soppeeku ay poste du ko tax a soppeeku moom kam doonoon lay gëm ni moom la doon ba tey lu jafee ngoog nag lu jafe ci àdduna ngoog doomu aadama dem ba soppeeku te benn mbir buy wane ni yow soppeeku nga amut ci ndomba tànk yaag ci poste yaag ci yomb gaag lépp déedéet loolu lu jafee jafe ngoog moo tax mu ne ko inni ana axuuk man maay sa frère bi te moo ne amul benn werante ci ni moom mooy mënoon na ko wax inni ana aziz misra man maay buur bu dëkk bi may kilifa gi tey ndax aziz ba mooy premier ministre te xam ngeen premier jamono jooju ba jamonoy tey daanaka mooy yore réew ma booy seetlu ba léegi ci sew sew yi nga xam ni danañ jàng saar wi lu bari duñ ko seetlu mooy saar wi ci ab gént la déparé jeexee ci firim gént kon ndeke gént mën nga koo gént ay at mu doog a saar wi mi ngi tàmbale ci inni raaytu ahada ashara kawkaban wa shamsa wal qamar raaytuhum lii saajidin ñu tàbbal ko fi ci teen ba jaay ko ca marché ba mu def ci pale ba ay at génn def ca kasaba ay at génn nekk président gént ko doog a fireeku hada tawilu ruyaay xam qablu saa gént ki defireeku na kon ndeke mën ngaa gént ak gént affaire bi dem sax ñaar fukki at ak juróom gént ko doog a fireeku kon saar waa ngi tàmbale ci ak gént jeexee ci firim gént bokk na ci yi nga xam ne dinga ko seetlu ci biir saar wi mooy découragé warta am ci dund gis nga ku absenté lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg bis mën naa ñëw mu feeñ ku absent daa jékki-jékki rek ni mër ay bokkam kenn xamul fu mu tukki ge bul découragé mën naa jékki-jékki rek feeñ ndax jàpp na ne bu dee ñàkk a feeñ dong Yuusuf lañ gënoon a yaakaar ci ñàkk feeñ ñàkk a si beneen bi ci des mooy njàqare lu mu yàgg yàgg yàgg bi sa mbégte dana ñëw ndax xam ngeen ni baayab Yuusuf njàqare jam amoon ca demuk Yuusuf mbégte mu ni toll am na ko bés ba Yuusuf di dellu si beneen bi ci des mooy ndekete doomu aadama day lu mu nekk nekk ku doyadi bis mën naa ñëw mu yëkkati ku ba ku koy xool da koy xool bët yu kawe yaa axi boo toppee saar bi yow da naan daanaka saar bi daal xanaa laaya joo jël kalima boo jël rek njàngat yuy tax nit ki jëriñu ci addunaam ak allaaxiraan da caa daje moo tax kenn ci borom xam-xam yi dafa def benn seetlu bu am solo taalif ko ci téeréem wane importance bi nga xam ni surtout Yuusuf am na ko waaye moom dafa def benn sew seetlu boo xam ni man néew na lu ma gis sax boroom xam-xam yi bind ci mbaa ñu wax ca mooy dafa jël histoire Yuusufa mu xaaral na ko ak histoire Muusa mu ni pour li lay wan ni saar wi am na solo nit ñi léeg-léeg wetu nett li daw yaram geeg tàbbi ca teen baag fireekum gént gaag yooyu daanaka mu ni ci bari ci ñu fassiru ni ca la ñuy développé waaye mu ni boo dee seetlu ba diggante nettalib Muusa ak nettalib Yuusufa dafa am ay relation yu dëgër yu leen boole yoo xam ni man day wax dëgg yàlla man mii di wax wax jooja balaa ma caa teg bët mësuma seetlu loolu mësuma koo seetlu dangay ngay jàng moo tax man la saar wi li tax laytaay gi am solo mooy saar wi day tax day tax fi ne sa bët yi boo ko xulli woon léegi lu yam da nga koy xulli woon bu baax nag ci saar wi nag ngir gën a bàyyi xel ndax man yii yi jëkk xëy na am na ci yu bare bare léeg-léeg di nga ci bàyyi xel booy nafar am na yoo xam ne nga romb fasiroon yi wax ko am na yoo xam ne la nga dégg ab borom xam-xam wax ko waaye yii mujj moom man dama ko daawul sax a bàyyi xel moo tax moo lay wane alquran gis nga boo koy tadabbur bis bu nekk rek ay yëf di gën a bees bokk na ca comparaison bi muy def ci histoire qissatu Yusuf ak Muusa mu ne yéen a ngi fàttaliku ci wàllu histoire day Muusa ay mbiram ma nga tàmbalee Misra mu ni moo taxit yuusufa ay biram mi ngi tàmbali misra ñoo ko nurale ñoom ñaar kenn ku ci nekk rek Moussa balaa Madiana ak balaa dem fii ak dem fala tuuru Seyna ak yooyu yëpp misra la woon Youssouf balaa ñuy wax yii yëpp moom it kadaalika misra la woon bokk na ci seetlu yi ba léegi mu ni Youssouf alayhi salaatu wa salaam ñi ko gën a bañ ñi ko gën a bañ muy ay bokkam ndax añaanee ga ñoo ko jël tàbbal ko fi xayaabatil jubbi ca teen ba. mu ne contraire baa am Moussa day moom ko ko gën a bëgg moo ko jël tàbbal ko ca ndox ma du teen waaye cim ndox la kon diggante ka gën a bañ di def la muy def ngir bëgg mu alku fekk même lam def ka gën a bëgg ma koy def ngir bëgg mu jariñu muy comparaison boo xam ne wax dëgg yàlla am na diqa tor torop moo tax boo seetloo même baat yi lañ jëfandikoo wa alquhu fi xayaabatil jubbi fële mu ni fa alqihi fil yammi men baat bi lañ jëfandikoo ñee nañ ko sànni ca biir teen ba kii mu ni nañ ko sànni sànni leen ko ca biir ndox ma mu ni xoolal baatab sànni leen ko ci biir teen ba lim àndal ci coxorte ak bëgg mu al mu ni xoolal sànni leen ko ci biir ndox mi lam ànd ak ci bëgg ak bëgg mu mucc mu ni dafa mel ni kon bii daa ñëw ngir safaanu bale ngir xam ni kee a ngay def la muy def ànd ak coxor te du ca am ndam kii mu ngi def li muy def muy nuru lu mitti waaye mu ni ca la nar a amee ndam mu ni loolu nag boo ko seetloo amut genn jàngat gu lay jox guddut bee rek leb doomu aadama doomu aadama moo doon def ay pexeem pour bëgg naa likkite nit ki booy def say pexe ngir bëgg ñu likkite ko te yàlla dogul ñu likkite ko du mësa likkite wu mukk waaye bee nag def defuk suñu borom la ndax moo ko yenkeewal ni ko fa alqihi fil mi yàlla moo ne ko sànni leen ko ci ndox mi kon loola def defak suñu borom la kon bee def defam nit la moo tax bañ ko tànnee sàbbale ca ndox mu mucc na lii nag def defab suñ borom la moo ko digal nit mu def ko moo taxit it bañ ko tàbbale ca ndox mu mucc na beneen bi ci des mooy boo seetloo ñoom ñaar ñëpp kenn ko ci nekk ba nga déparé ci pale ga téere ji yusufa ba mu déparé bañ tàbbal ko ca teen ba ba mu génnee ca pale ba la dépa téere ji Muusa bi mu déparé moom it ca dex ga pale bala la teeree ji kon kenn ku ne ci ñoom ñaar pale waaye nag ñaari palais yi dañoo wuute parce que pale bii moom dañoo soxla liir bi pale bii dañoo soxla liir bi palais bii it dañoo soxla liir bi waaye nag pale bii ngay gis muy bu njëkk bi kat boo seetloo jigéen ja nekk moo amoon aajo ci nguur si waaye moo ko indil fitna pale bi ci des nag kee de amu ca woon aaja waaye yàllaa ko dogal ba mu ñëw ci ay loxoom moo taxit moo ko doon dimbali muy soxna Firawna nga xamante ni lépp lu man def na ko ci muccal Muusa ak dimbali ko boo dee seetlu ba léegi am na sew sew bu am solo boo xam ni akamata bàyyi xel mooy walamma balaga ashuddahu aataynaahu xukman wa ilman wa kadalika najzi almuhsinin wa lamma balaga ashuddahu wastawa aataynaahu xukman wa ilman wa kadalika najzi lmuxsinin foofu Moussa ak Yusufa ñoo ko nurale waaye man dafa am benn sew sew bu am solo bu ma ciy bàyyi xel mooy xam nga fële na ni ba mu demee ba balaga ashuddahu ba mu demee ba nekk waxambaane xale bu dëgër nag toll ci yenu ay responsabilité borom bi mu ni aataynaahu xukman wa ilman nubuwa ga xam-xam baag yëpp ci la yegg si mu ne wa kadalika najzi lmuxsinin فهموني ولما بلغ أشد واستوى آتينا حكما وعل آتينا حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين نيوكو نوري لي واي سو سو بيتي نيك موي غيس نغا دوما ادم ليك ليك دي نغي يوتو مبير سونو بروم دالاكاي دالاكو دول جوخ باسكو دا جوتو خولال لي سون بروم تك سي لوخول يوسف نيم تول خولال لي سون بروم جوخ تك سي لوخول موسى نيم تول waye kenn ku ci nekk nag dañoo bàyyi ba ab ba jot wala ma balaxa asuddaku ba mu demee ba yëfee yemb moo tax minbar bi bu ngeen fàttalikoo ca xutba xatta ida balaxa asudda wa balaxa arbaina sana nga ne ma ne leen léeg am na yu bari ci sa àdduna da nga koy yóotu borom bi dana ba nga wees ñeent fukki nit ko jox boo seet lépp ci yonent yi ci ñeent fukk lañ leen yónnee boo seetloo yu baree baree bari ci sam xel boo xësi am ñeent fukk jëm kaw même ni ngay réagir sax dootoo du bokk na ni nga def yu bari yoo daan def dootoo ko defat yu bari yoo daawul def da nga ko nangu tey mais kii daa tàngoon ñu ni daa sedd dafa seddoon dafa commencé nangam dafa nangam dafa compliqué ñun léegi maanaam doomu aadama ci bopp boppam dafa am période boo xam boo fa tolloo sa dundee suppeeku kon léeg-léeg da ngay yuutu mbir fekk mbir ma amaan na sax gën na waaye daa gën a gudd amaan na baax na waaye dafa baaxu gudd booy seetlu ba léegi ci comparaison bi mu doon def muy ku amuk settantal ci téere yàlla bi mu ni Muusaa day tiis wa tiis wa ko gaar yaayam lañ ko teg tiisu tiis loolu la ko gaar yaayam lañ ko teg waaye yusuf de moom tiis loolu la ko gaar baayam lañ ko teg fekk fa yaayam wa asbaha fuaadu ummi muusa faariga ca suuratu qasas yaay ji daanaka dem na ba xol bi moom li wolof naan naw gaa nga aju dafa dem ba tiit ba naw ga aju gis ngeen yusufa moom baayam moo wax yaa asafa ala yusuf dëgg dëgg dëgg fi nag am naaw tiis nag wa byaddat aynaahu min alxuzni fa huwa kadhim mu ni kon dafa mel daal loo gis ci histoire histoire yusuf ba yàlla génn ca kéemaan rek contraire ba jël ci surtout yusuf génn ci kéemaan yusuf alayhi salaatu wasalaam boo seetloo ay bokkam yum bokkal deret baay ñoo ko sànq ca teen ba moo taxit Muusa kum bokkal day ak bàyyi tey jigéen moom moo doon séentu balaa muy lab moom moom moo koy fexe di ko sauver gis ngeen borom bi tabaraka wa taala lam wax ca ndaw sa nga xamante ni mooy mag ja borom bi tabaraka wa taala mu ni nanu yabal mag ja mu di ko saytu di ko xool ba xam tàbbi na ci biir ndox ma wala tàbbiwut ci biir ndox ma borom bi tabaraka wa taala boo seetloo kon wax googu mu wax wa qaalat li uxtihi qussiihi fa basurat bihi an junub kooka ka ko def jigéen la waaye bu dee yuusuf nag boo seetloo ay bokkam moom ñoo ko doon jël di ko jéem a sànq di ko jéem a alak kii de bañ ko waxee ni ko demal saytu xale ba moom dem na ak yéene moo taxit am na ca ndam ña doon wax naan ñañ wax idhabu fa taxassasu min yusuf jug ngeen dem gëstu ju yusuf ñoom ñooñu xam nga duñ ko gis lu tax duñ ko gis ñoo ko tax ba ca teen ba kooku dina ko gis du ko gis ko sax na def benn effort pour gis ko maanaam man li ma yéem mooy boo seetloo kéemaan gu suñu borom defal Muusa rek safaan ba ci même kéemaan googu safaan ba la ñuy jël mu nekk kéemaan gu Yusuf alayhi salaatu wassalaam gis ngeen borom bi tabaraka wa taala wax na yaayi Muusa ni ko inna radduhu ilayk wa jaa'iluhu min al mursalin bur tiit ngóor si dana yegg si dellu si waat ci say loxo tam yonent lay doon yaquba it li coow li bari bari bari problème bi mu am ana yusuf fu mu nekk mbaa mu ngi ci jàmm ak kañ lay dellu si loolu mooy problème am waaye wóoroon na ko ni yusuf dana ñëwaat ci ay loxoom la koy firndeel mooy inni aalamu min allahi ma la taalamun xam naa ci yàlla loo xamante nii moom xamu leen boo dee seetlu ba ci biir Muusa alayhi salaatu salaam ci biir pale la yaroo waaye fa mu mucceeg waa pale ba ne xudde ak yàqoola gu mat sëkk Yuusufa ci biir pale la jëkke waaye daa tàmbali ci yàqoo mujjee ci defaroo ndax yàqoo ga mooy keroog ba muy dem kaso defaroo ga mooy bañ leen laajee lu ngeen xam ci Yuusuf dëgg dëgg dëgg nag maa alim naa alayhi min suur kii daal dëgg dëgg xamaluñ ko lu bon yàlla xam na ni mbokk jullit yi boo toppee njàngat yi nga mën a seetlu ci suuratu Yuusuf ci ak dëppoo akuk méngoo ak ay jàngat ak bañ a décourager ak xam ni mbir yi suñ boroom a ko yore ak tàmbali ci lu kenn xamut mujj ci lu kenn xam ak tàmbali ci doye di kenn du la tudd kenn du la xam ñu ku nga nekk buur moo tax dinaa koy wax mbokk yi ba Yuusuf demee bay jeexal dafa wax am solo يوسف داني ربي يا سونو بروم قد اتيتني من الملك دغ دغ دغ نك يالا نك ديفال غاما قد اتيتني من الملك يا ودي يالا ماي غاما غو وعلمتني من تاويل الاحاديث فريم جنتيت نك ماي غاما فاطر السماوات والارض اسمان يا كولال مولي دغ سي كو سوف يا كولال مو توك بن بلاص ما واخني بريزيدنت كوكو يدي ريم في نيك نيك yow de président boo dee seetlu xanaa ci l'islam waaye bu dee ci wàllu luwaay àdduna président sax muy jiite baayam mooy jiite yaayam kon kook kan la ragal wolof yi dañuy wax ni soo amatul ak repp nga rek keroog nga repp bis boo dee ba amoo ak repp nga yow keroog repp nga yow loolu mooy lan bu njëkkoon da ngay gis ku ne day amuk repp nga repp nga sa baay wala sa yaay wala sa ndijaay wala sa rakki baay wala sa mag ju góor maanaam daal dëkk bi am nga fi ak repp nga nga xam nit ñi bu ñu jaaxlee ci yow ci misaal waa bu taxoon damay fas sama jabar kii kenn du yendu ci kër gi ñu ne dem leen wooyee ndijaay xaalis ndax moom moom bu ñëwee léegi di nga normal parce que sa ndijaay la bokk ak sa yaay waaye ku am dayo la ci famille bi kooka bu yegsee bu la joxoñee ba xulli la bëtam yooyu rek di nga bàyyi li nga jàppoon waaye bu fekkee yow da ngaa nekk ko xam amoog repp nga buñ jaaxlee ci yow duñu xam kuñ war a woy keroog bis boobu repp nga yow moo tax seetlu leen li may wax ndaw yu bare bare bare fi ne dañoo repp ko ci gis fi ne ci ay tojaanga ci tooxidoona lay dekk lu ko waral parce que da ngay japp ni yaa gën jang sa bay ya xam sunna legi am nga pass bu baax legi seen waa kër kenn dula wax deug dañ la ragal lu la neex ngay def boy def do diso moo taxit da ngay xëy rek supp jarañ rek damm sa loos moo tax amul ak rep nga rek kérok da nga rep nit ku ne war nga am rep nga même bu dé ben nit bo buñu jaxlé kat diw dal xamna ni mom yaakar nañ ni mom kuko wo dana man ci diw dara benn waaye daf maa ma sa woo mu ni ma dafa joteeg soxnaam ñuy wax baag soxna si ni ko sox soxna si moo ko waaw soxna si moo ko wax ni ko ku la neex wool man kenn mënut ci man dara ma ne ko kooku daa yàqu kooku dafa yàqu loolu kenn du ko bàkkoo loolu ab dof rek moo koy bàkkoo wool ku la neex ku ñëw fii mënut ci man dara ma ne ko benn ñaareel mooy ma ne ko kookuy wax ak yow sa borom kër amutum xel ndax loolu du may courage ki nga nekkal maanaam ki nga nekkal bu demee ba xam ne yow kii kenn mënul ci yow dara maanaam lenn lu koy sawarloo ci yow sax dootul amati waaye fii mi ngi xam ni diw mën na ci yow dara yaa ngi koy may courage pour mu toog ndax lu metti metti metti xelam mi ngi naan bu ma waxee diw peut-être diw wax ak moom mu nangam nangam kon mi ngi am lu ko dese waaye bu yëgee ni kenn mënul ci yow dara deseetul dara moo tax doomu aadama yu bare bare ndeysaan dañuy jëflante te xamuñu jëflante kon surtout Yusuf bokk ci ni yàlla xam ne ne li ci nekk ci ay njàngale yooyu dañ koo tënkoon rek def ko ab lumière ab torche bu ñuy nit nga xam ne nit ki boo xullee sëy ba dañ naan surtout Yuusufa nga ne yaa ngi ko nar romb nag waaye am nay njàngale sàngam njàngale sàngam njàngale sàngam di ko romb yaakaar naa ñun daanañ jàng surtout Yuusuf waaye lu ci bare bari histoire ba ñii ñoo soxor tàmbal ko ca teen ba mu génn waaye yàlla mooy dogal maanaam dégg-dégg yu tonda tond nga ciy am waaye nag sew yii nga xam ne mufassirun dañ koy def gis naa benn boroom xam-xam boo xam ne ab téere ab téere lëmm la taalif ci suratu yusuf suratu yusuf kese kese nga xam ni kon saar wi bari na mbir de maanaam moom tafsirul ci alquran ji yëpp <coughs> tafsirul ci qisasul anbiya waaye suratu yusuf ci boppam aaya ginnaaw aaya aaya ginnaaw moom saar wi yëpp téere bi yëpp téere suuf xaw a yemamaay la xam naa moo tolloog téere sii ma yore nii ci suratu yusuf kese la ko def la ko tàmbalee ca naxnu naqussu aleyk ahsan al qasasi ba ca jeexintal ba nga xam ni ay njàngale yu am solo yoo xam ni yow boo ko tiimee da nga naan kon dafa mel daal bu fekkoon te tey dañoo bàyyi yeneen waxtaan yëpp di waxtaan ci suuratu Yusuf at mi yëpp yëpp yëpp ndeke li ma soxla ci sa dund ci at mi yëpp yëpp mën naa ko fekk ci suuratu Yusuf loolu nag ak ubbee la woon goo xam ni safahatun mudi ala wala boog mu nekk muqaddimatun fi tafsiri suratu yusuf nuy ñaan suñu borom tabaraka wa taala bi asmaihi alxusna wa sifatihi al ulia saar wi ñu dëgmal de lii loolu ñu ci junj tey wane ne lu am solo yu am solo mi ngi ci yàlla nu borom bi defal ak teewlu akuk dal ak fekkeek mën a jariñoo yi nga xam ne moo ci nekk ci ay njàngale muy benn ñaareel bi mooy yiñ ci mën a jariñoo ci suñu àdduna ak yéen ca mën a jariñoo suñu àllaaxira yépp yàlla na suñu borom dimbale ñu ban mën koo jariñoo mu bañ a nekk yu ñuy romb jàll beneen bi ci des mooy ñu bàyyiwaat xel ni saar wii day euh, kenn la ci yonent yàlla yi alayhimu salaatu wa salaam waaye wax dëgg yàlla ku ne ci ñun mën na cee natt ci boppam ci jikko yu rafet yusuf yu metti yi ñu ko def genn wàllu lu metti loolu buñ la ko defoon yow nga tukkal adduna bi xoolal tiim nit xonc ko ci baayam mu di xale bu ndaw nga fallaxe ko bëmëx ko mu tàbbi ca teen yow ñu la tàbbalee nga xalaat ni sama bopp bi mënoon na faa jaaree toj sa ndigg li mënoon na faa jaaree damm sa loxo bi mënoon naa coincé ci pindab teen bi baa mu coincé ca biis bi nekk ca biir maanaam xeeti risque yu bon te metti lu ne lu ne dafa am ci tàbbalum teen nga xam ne yow yow min ko def booy toog di ko xalaat rek est ce que seetlu ngeen ni yenn yu bon yéen lay def toog di ko xalaataat sax baaxul parce que jëmmi xalaataat ko day tax nga soxor day tax nga bëgg a fayu day tax boo baale woon sax nga dellu gannaaw ca baal ga moo tax bu ngeen seetloo Yuusuf ku yéeme la ngir wan la bëgguma koo fàttali ko sax buy tudd du ko tudd moo tax ci biir saar bi gis ngeen ba muy lim xéewali suñu borom ya ba yegg si ca yow suñu borom yaa ma defal nangam moo ma génn ci kaso bi mu ne yàlla mi ko génn ci kaso bi moo ko génn ci teen bi waaye kenn ci borom xam-xam yi day wax ni borom bi tabaraka defe naa Muhammad Bakri Ismail mooy wax wax ju noonu mu ni borom bi tabaraka taala def na ni Yuusufa bu tuddee ab teen rek dana blessé gars yi ndax ñoom xam nañu ñoo ko tàmbal ci teen bi waaye bu tuddee kasaba ñii seen yoon néewul ci kasaba parce que xëy na sama si ca la jaar mu ni ñaari yëpp ñoo bokk benn at ndax ki ko génne ci teen moo ko génne ci kasa bi waaye su ma tuddee teen bi laal ñee su ma tuddee kasa bi fëri laay laal mu ni mu xaarama laal tudd la de ngir wan lañu la rek bëgguma wane ni man mii baal naa la ba nopp waaye am na lu may xalaataan baal ñu mu ni la tasriba alaykum al yawm yaghfirullahu lakum man amatu leen am nga problème yàlla ngeen amal problème jéggalu leen ko rek baal leen mu jeex surtout Youssouf damay wax ne da ngay wax a wax a wax a wax ba fa nga mën a nga yem fa wax a wax a wax ba fa nga xam yem nga yem fa waaye li ci nekk ci ay njàngale lu bari lool la incha allah dars bii di ñëw nag dinañ sóobu ci saar wi dëgg-dëgg di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boolem ci ñi nga xam ne yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in